naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baal ku yëg da ngay ñàkk kon mbokk yi ñu suivre ci Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen dañ wax ne nag tey le dimanche 4 juillet ñu nekkoon stadium Iba Mar Diop Assane Ndiaye bool production tëggoon fa combat boo xam ne daaw ba ren amateuru lamb yi ñu ngi koy xaar mu waroon dox ci diggante mbay gu gi ak Mame Balla mais lamb ja macha allah neex na lool lool parce que li tax mooy ay combat amateur ñoo fa nekkoon ndax ki nga xam ne moom moo di gàkku de mook booy Dakar defe naa seen combat kenn doyalu ci xeex nañu ba ku ci nekk kii sa bët kii ñoom ñaar ñëpp seen i bët nga neew yi waaye nag gàkku moo mujj am ndam ñu koy félicité ci ay avertissement ki nga xam ne moom mooy Sisa bu Pikine moom tamit mook Petit Ña combat bu neex bëree waaye Cisa daan ko jël bu rëy rëy grand combat ba nag doxoon ci diggante mbay gu gi ak Mame Balla borom top 5 borom Pikine borom way di mbër mu mën a bëre macha allah waaye daa mel ni combat ba donte diire na tuuti waaye nag am na foo xam ne bañ fa yeggee fa la làmb ja jaare lépp doxee fa tàbbi géej comme ni ñu koy waxe maa ngi lay bëgg di nuyu waa Lumba Yoro Sob yëpp. waaw man it maa ngi nuyu Lumba Yoro Sob sama doomu nday sama xarit moo may solal. Ah. lu ma duggee fii lu ma bëgg damay jël sol. lu ma yara soog sama doomu nday sama xarit maa lay bëggee waa di wax ginnaaw ban sante yàlla bab su julli si yónneen bi ñu ngi gërëm suñu ñaari waajur di sant yàlla di wax jërëjëfe yàlla jërëjëfe yàlla jërëjëfe yàlla suñu borom di wax jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall Lam maa ngi sant yàlla julli si yónneen bi gërëm sama ñaari waajur di gërëm sama Serigne Sëñ Tafa Diouf borom boox ak njaañ di gërëm ñëpp Babacar di gërëm waa Medina Medina dañ ma jàppale ak Bawal tey boo gisee stade bi tey stade bi ma samel nii bawal Medina dañu taxaw jàppale ma aw ma seen fay bawal Medina fépp ku doon bëgge mbay guy gi rek maa ngi lay bëgge di la ziar di la ñaan jàmm di la wax jërëjëf defa defaluma leen lu tax ngeen topp ma di sant yàlla bu baax nag di gërëm sama yaay bu baax a baax a baax lii lépp waxoon na ma ko nee na ma day miti rek waaye kenn du la daan maa ngi gërëm sama yaay bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di ko wax mer defal ñaani rek yàlla baax na li ci kanam rawti bët di sant yàlla di julli si yónnent bi Babacar di nuyu waa Petersen Sandaga Alkayda fépp Cheikh caw sama doomu ndey Mor Baye lu ne lañ def ci combat bi Malick borom moto yi Maas borom moto yi ak Maas borom saak yi sama gaay lu ne lañ def ci combat bi Cheikh Thiaw Mor Baye Fall Malick Balla Gaye gas sëñ Modou sama mag ak sama mag yi ne Colobane lu ne lañ def ci combat bi lu ne liñ yoroon yëpp lañ ci def Petersen Dame Cissé mbay ndereb moom mbay ndereb mention spéciale mbay mbay yàlla na la yàlla sunu borom fayal boppam mbay ndereb borom centenaire borom Petersen mbay jàppale nga ma bama xam ne jàppale nga ma maa ngi lay sant di la gërëm mbay ndereb bu baax a baax a baax di gërëm waa centenaire Modou Fall maa ngi lay bëgg di la gërëm di nuyu sama papa Cissé Thiam di ñaanal ñëpp jàmm di wax lépp nag Aziz Ndiaye la sama papa sama xarit Abdou Aziz Ale Ndiaye ale ale yëpp maa ngi leen di bëggee ñoom Sora Badou Khalil maa ngi bëggee aale aale yëpp man lañ farat Baye a ah, borom alburaax Gibson production di bëggee sama papa Aziz Ndiaye di kontaan ci yow bu baax di la ñaanal jàmm. xanaa Aziz la jox victoire bi. di nuyu jéey seen sama papa moom it tey daa tëggoon giri de kee maa ngi koy. sama papa sama xarit victoire bi Aziz sama ko jox bu yàgg. mystiquement. mystiquement moralement ak xaalis bu dul jeex nag. ñaata million li ma jox du ma ko ŋaang. la illa jox na lay million paree damay tabaxi suñu kër dëkk ba. te Aziza def loolu waaw. léegi am na solo sama papa Cissé Thiam. borom Kaolack. xaru laadum la yëkkati may ma ko. ay cinq jours damay dem jëli ko. am nga xaru laadum la yëkkati may ma ko sama papa Cissé Thiam ba pare ngemb ma yëkkati xaalis bu bëri may ma ko sama papa Cissé Thiam ak sama papa Ngopa. kër bu Mod Lama. Mor Diouf Mor Diouf Babacar bu Mod Lama. maa ngi leen di gërëm bu wax di gërëm Modou la ma seen mag di gërëm ñoom xaadim Giri Bordeaux pater seen ñëpp ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen ñaanal jàmm Sandaga fépp ku naan yokkal ma jaag la maa ngi lay ziar di la ñaanal jàmm bu baax a baax a baax di ñaanal ñëpp ñi ma ñaanal sama sëriñ gi maa ngi leen di kontaane bu baax jibi maara maa ngi lay ziar karamba borom jinne sama doomu nday bég naa gis naa lépp lépp leer na nañ maa ngi ñaanal ñëpp jàmm Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. wax nga ñi la ñaanal nuyu nga leen ziar nga leen am na solo mais combat bi muy taxaw presque café la taxawee woon bi mu taxawee fa ngeen njëkk am jotaay man keroog maa leen présenté nga toog maam Balla toog mais ci sa communication boobu combat bi ñëw maanaam mooy saa yu ma la jàppee saa yu ma la jàppee saa yu ma la jàppee bi ngay jël maam Balla yow da nga xalaatoon ni kii mën a bëreem bi ñuy wax bu ñëwee ci combat bi du feeñ ndax da nga ëpp doole wala lan confiance boobu nga doon dégager tout le temps. maa ngi gërëm Abdou Tall Abdou Tall non Abdou Tall daa jàpp ci combat bi sama waay la sama xarit Abdou maa ngi lay gërëm bu baax Abdou bu xarañ loo léegi Abdou mu mbay guy gi ah. maa ngi lay sant di la gërëm bu baax Mam Balla grand la jëkk ma ci làmb daan ay Moussa Ndoye daan champion yëpp yàlla def ma doon xale di bëree di bëree di daan morom ba dajeek moom est que dégg nga ma li may mën a gëm mooy xale dama ne ci yoon làmb dañu am ci man yaakaar yàlla bu yaakaar tas am ay kilifa yu top sama ginnaaw di ma ñaanal te yàlla ta bëgg ma man xaw ma nit ñi lan laa leen defal bab ban topp ma maa ngi gërëm ñëpp ñëpp ñëpp di ñaanal ñëpp jam di nuyu waa Kasoor yëpp. digal ma ci combat maam Balla dama ko jël mu doon grand frère champion la. mais leeral dama ci Serigne Touba maa doole. bab su man dama liggéey. billahi wallahi taalaahi dama entraîné ba fu ma jaar fi ñu naa ma da ngaa jeex man dama yéeg grand dee di fajaru di entraîné dem géej tafaatin ku ànd ak moom di entraîner mënoo ñàkk doole sama mag jooj maa ngi koy ñaanal yàlla sunu borom def mu dóor booy ñaa mu daanu tafaatin na dóor booy ñaamu daanu ñu jox ma booy ñaa mbay li ngay wax ni doyul waar tafaa na dóor booy ñaamu daanu ñu jox ma booy ñaa bu dégol est que mën na koo dóor mu daanu billaahi wallaahi taalaahi loolu moom yàllaa xam mais ñun li ne sunu xol la ni ñaan yàlla mi yor ndam yàlla na def tafaatin dóor booy ñaa mu daanu ñu jox ma booy ñaa booy ñaa billahi wallahi ëpp ma doole manuma te bu neen pire génn suñu diggante si kawam laa jëm. bay sa yaram tàng na yaram tàng amut. parce que tey dafa def signature ak Tafa. tout sama tur takkal ma àdduna ñu bëri. takkale loo def ba mu lay takk dafa toog ci signature bi ne mbay guy gi jël sama yet di ko wane Joal lañ dem Tafatin di bàkku. sa yet Tafa Joal lañ dem Tafatin di bàkku. maa yëgatut booy bi yor yetam bi kaan bi yoot ma dóor ma ko fii sama fii dag ma ne mépp booy bi mu daw ma këf yet bi dam ko téye ko. est-ce que dégg nga ma sama fii di naaj léegi mu toog ci télé bi def ten ten ten deuxième signature mu ne mbay guy gi jël na sama yet damm ko di ko wane ci télé yeeg yëpp defuma lool booye ma ma dóor yet bi ma jël ko damm ko téye ko est-ce que dégg nga ma wane ko fépp nag man li may def ragaluma ci dara lijjantiwuma kenn ci àdduna man barke arxuraan aw ma lu may tiit aw ma lu may ragal mais Tapha Tine ñun sunu mag la te combat bi billaay walaay bu laajee bakkan sax ma kan barke arxuraan billaahi wallaahi bu laajee bakkan sax ma jël sama bakkan teg ko mu daan booy ñaa mais est-ce que du mer moom la jàpp nga naan booy ñaa bu euh, ëpp la doole ak yooyu booy ñaa alaaji fallu mbàkke booy ñaa ëpp ma doole boo nu tëjoon ci saal lu yëkkati ma yëkkati ko lu mu def ma def ko mais buñu leen tëjee ci géew ma duma ko daan ko a ah, dépassé na tafa lay mais dépassé nga wax mais garaawut mais déggoo ma ba mu bëre ba daanu ah, kan moo day daanu ba day daanu te dañuy bëre waay mbay yow mi feex nga de. ba arbitre soufflé Tapha da koy duma daan ko jox ma ko ma daan ko. yenn ko ba taxaw dóor ko suuf maa leen gën a nekk xale maa man mu may jaxaseeg àdduna képp ku dégg signature bi foog ne mbay guy gee yàq signature. mais est-ce que da ngaa def yow tamit rek. bu dee yàq naa ci dara. dama ko taxawoon ñaan ko laajal ñi bu dee toj naa oto booy ñaa wala ma sànniw xeer mu laal daraay booy ñaa damaa taxaw fii sama gars yi ku dëkk fii Mohamed Seck da koy suti galaaj ma ne ko bu dee toj naa dara ci yëfi booy ñaa wala ma sànni benn xeer yàlla bu ma am ndam ci combat bi ma jëm barke alxuraanu karim am na solo léegi ma ñëw sa combat ak Mame Balla bi arbitre bi soufflé bi nga ñëw si sax ci lamb ji dama gis rek nga nekk sa confiance rek yow di ñëw ci moom des fois nga ñëw ba jege ko ne ko xool ma di di ko def ay affaire de quoi lu bab su dañoo pare xam nga ku pare moom da ngay neex a ñaanal ay kilifa ne suñ ginnaaw di ñu ñaanal mais danga ngaa pare woon ci bëre beeg doole ci pare naa ci doole ci bëre fii ba suba kon fii ba suba moo gën a sonn. Balla kay dawut daa son mu sonne gisoo ko. son na tax mu jéem luy joxe wet. ah mbay yow mi yow mi sonn ba tekki say galaaj sax. galaaj yi ci la jàppoon. bi bëri bi mi tee da cee jàpp mais ba ma ko dindee laa xam ne bu ñuy jàppante waat ma koy daan. mais benn moment premier songo bi dama gis na yow la nga bëggoon def Alioune Seye Junior nga ko bëggoon def wàcc rek daw tibib tànkam moom itam daa mën a bëre fekk ko fa tànk. da caa entraîné loolu yëpp waxoon naa ko nee naa ko mu neex mu naqari la dama lay daan. yàlla naka yor ndam mais yàlla damaa xam ne daa ànd ak man barke alxuraan Mame Balla champion la maa ngi koy. mais ku mën a bëri la xam nga ne. maa ngi ko bañ a mën a bëri te dafa. liggéey na ci combat bi xam nga ne bi ñu jàppante xam naa ci dara. bin loo yëg bi ko jàppee. non bi ñu jàppante macha allah xam naa ni kii ndaanaan la. parce que combat nga bëggoon mu jeexe jeexewu fa. déggoo ma loolu yëpp xamoon naa ne combat bi dina am temps tuuti. loolu leeroon na ma naañ moo tax ma dem jël sama poids dindi ko physique mu naa ma pata nga ñeey mais bi ma ko jàppee xam na ne bokkuñu maa ko bu doole mais liggéey na. bi nga ko jàppee action man nga cee diw di nu mu demee ba nga buddi ko. dañu jàppante sama loxo bi jàpp gauche bi ma fexe ba droite bi jàpp droite bi bi mu jàppee nag dama jël sama beneen gauche bi yóbbu ko ca ginnaaw mu yóbbu ko ci ginnaaw ngemb li téye ne ko yey mu foo côté bee laay dem ma daw bët ko ñëw mu roof tàng ma keppale mu jàll ma siggi yenu ko dóor ko suuf gis naa mu lay jéem a sax lonk foofu tànk cax du ma ko man dama am doole yooyu dama mën a daan man may xale bu ndaw liggéey ay mboot yi bés bu ma daanee ma bàyyi bëre billaahi wallaahi maa ngi gërëm ñëpp nag sama dëkk waa reefan boox maa ngi gërëm ñëpp paa yi maa ngi gërëm ñëpp reefan tout fépp fu bawal bawal ne deretu bawal bawal di daw sa yaram rek maa ngi lay gërëm di la ñaanal jàmm ak waa Medina ñëpp Mm-hmm. mu mel ni mbay guy gi dafa mel ni dafa soppeeku léegi ci man ci côté bëre Cees bu ñu seetloo say combat léegi ni nga koy tege ci yoon ni ngay bëree ni ngay amee ndam lan moo sopp maanaam lan moo indi loolu si yow. loolu li ko lépp bab su mooy ay kilifa topp suñu ginnaaw ñun daan nañ ñu mais boobu ay xale lañ. daan nañ la fi de. waaw daan na la fi ay xale lañ. laay goota champion la kooku mën naa daan ku ne maa ngi koy ñaanal jàmm bu baax waaw moom combat yàlla ma. kan la fi daan. laay goota moo ma daan ak Fils de Balla. waaw ak Fils mais maa ngi gërëm ñëpp lool du dara. loolu première fois la woon te jeex na. actuellement yaa ngi ci ñaata victoire. actuellement nii nag Babs fi mu ne nii moom il faut ma toog calcul parce que gars yi bëri nañ de. li daan. waaw kañ a daanu kon ca na waaw yàgg na yàlla bu ma déggati daanu. Ah. man waaw yàlla bu ma amate man ta ñàkk nag mais dana yéex. am ci daa bëri xale pare de. déggoo ma de xale yi pare yëpp buñ ñu tëjoon ci entraînement ñu daw. nga pare lañ pare de. mais yow xam nga ci dara bu dee maak ñoom ñu ci simmeeku. gi gis la nga summeeku. la ba nga ma gisee ma simmeeku loo gis. Ah, gis naa ne liggéey nga sa adversaire liggéey na. ku gën a liggéey. xanaa ne sa xel loo xam ne xam nga ne maa gën a liggéey. mënuma xam la moo tax fan laa xam ne a liggéey bi nga ko jàppee ba mën koo buddi ci laa xam ne kon yaa ëpp doole. moom feeñ na parce tamit koo buddi ba yëkkati ko dóor ko ci suuf moom yaa ëpp doole. baagar mbër man ponkal yi laa soxla ñii may bëri ñëpp dama leen di daan ku ma jàpp dama bi lamb ji jeexee de mu fekk ma ko nan ma mbéy gu geeg Cheikh Tidiane Niang. xanaa non man moom bëree ma ak Cheikh bëree ma ak men mbëru a dépassé a dépassé wax dëgg. man moom bëree ma ak Cheikh Tidiane fa yàlla. boo ma tegaloon milliard fi bëree ma ak moom ñooñu. loo ko ragale ragaleew ma ko dara man mbëru aareel laa aareel laay bëre. Cheikh Tidiane Niang mbëru aareel da amagul defet na dem ndongo loo daan dem coow jibut ndongo loo Alioune Seye ko man Alioune Seye laa daan ñëw daan bokkuñu Cheikh Tidiane Niang bokkuñu yoon bu ko fi sax wax muy jëm kaw. non dañ ma koo wax. Babs xam nga kan laa soxla. koo soxla tabaati na daan booy na daan booy ñaa ñu jox ma booy ñaa. mbay nag booy ñaa yow itam xam nga ne boo ko waxee da ngay gudd da ngay guddal am mbayum noonu rek yow tamit. sama papa Abdou Aziz Ale Ndiaye ak Bada John Daouda Sarr. ah. Aziz lim la déy Aziz. kooku lama ma déey du ma ko toog di ko ŋaan toogal ba ci kanam tuuti ba fan yi nii hmm. Aziz Ndiaye barki Cheikhul Khadim yàlla laa koy bàyyat ak al amin turandoom billaahi wallahi loolu ma bëggal boppam di ma jàppale te yàlla tax di yëkkati xaalis bopp di ma ko jox bu ma nit ma may Abdou Aziz Aly Ndiaye yal na yàlla sunu borom kattanal la ba nga àggale li nga yaak mébét ci Sénégal yëpp barki Serigne Touba Sénégal gépp bu na moon dix yu mel ni Aziz Ndiaye léegi dëkk bi ay ndool yëpp jeex billaahi wallaahi mu ngi dimbalee di jàppale doomu aadama yi Aziz Ndiaye. bu ma gisee maanaam ci bawal ah euh, mbër yi macha allah bari nañ fa mais nga nekk koo xam ne yaa ngi percé di ñëw di ñëw ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk ba léegi maanaam mbéy gi daal fi mu nekk nii daa mel ni tur waa ngi bëgg euh, dem ci kaw léegi te bawal ku ne xam na ne bari na ay champion champion yi nga dëkkan ngeen bokku bawal bokku aw tund ñi ak ñooma dëkk reefan ñeen ñi dëkkuñu reefan waaye ñu ngi ci région maa ñu ngi ci euh, région de Diourbel nooy dundee ak ñoom maa ngi ñaanal kéwél yàlla sunu borom mi nga xam ne moo yor ndam may ko ndam kéwél yàlla na yàlla sunu borom may ko ndam lu sedd guy buur sin yàlla mi yor ndam yàlla na la may ndam ci sa kaw ci kaw mobile buur sin doomu nday bàyyi laat ak baay laat sama xarit buur sin maa ngi lay ñaanal ndam lu sedd guy yéen samay mag ngeen samay gara ngeen est-ce que dégg nga ma maa ngi kontaan ci yéen bu baax yàlla na leen yàlla sunu borom defal jàmm buur siin kéwél ak mbëri bawal yëpp ñoom Saal Balla Gaye yàlla na ko yàlla may ndam Ahmed Lagros BMW ñu ne sama écrit village Elimane Soukay maa ngi gërëm ñëpp di ñaanal mbër yi ne bawal yëpp am combat yàlla na leen yàlla sunu borom may ndam ñoom njaaxum ak ñëpp yàlla na ñoom komba am ndam ñoom booy puy Saal Bawal yàlla na yàlla sunu borom may ko ndam ci caatu ci kaw caatu yara Saal Bawal yàlla na ko yàlla may ndam lu sedd guy nit ku baax sama xarit billaahi wallaahi amaat maa ngi koy bëgg bu baax borom rëbës jàpp na ci combat bi maak Sall la jële fii dugal ñu ci oto yóbbu ñu fii ba côté Joal dem wutali ñu ay ñaan ci 4-4 lañ yóbbu kera lim dépassé ëpp na 500000 maak Sall ci ginnaaw oto bi daan naa damay dem ñaanal Sall yàlla sunu borom defal ko ndam waaw maa ngi ñaanal bépp mbër boo xam ne nekk nga bawal maa ngi lay ñaanal jàmm di la wax ne ñun ñoo ne bawal te ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay nañ yéeneente jàmm bu kenn dugg suñu diggante di ñu jaxase ci dara ñun ñoo far kéwél buur siin wulli dë ñun ñëpp ay ay nit lañ ñoo xam ne danoo ne bawal bu ñu waxee dañ ñuy déglu kon ñun nañ gën a booloo ak ñoom beem nañ gën a booloo dajale suñuy rakk yi nga xam ne ñun lañ topp ñun lañ topp bëgg ñu te yàlla tax ak sunu ñu topp ci sunu ginnaaw mag tafaatin ba yàlla sunu borom kum ci ne yow la fii nga dem mais maa ngi ñaanal bépp mbër boo xam ne dëkk nga bawal ah? ak côté bii Medina ñoom Diène Kayre maa ngi bëggee ñëpp maa ngi bëggee Boy Kayre sama papa la Diène Kayre it maa ngi koy ziar baax ak sama toos maa ngi leen di bëggee baax ñoom yaa ma gën a xam ñu ñàkk ñaan la ñëw nañ ba fii ñaanal ma sama papa Seydou Gueye it aw ma fayam jàpp na ci combat bi jëndal na ma ay ticket defaral na ma ay tiset maa ngi bëggee ñëpp merci merci Cheikh Ba maa ngi koy bëggee di ko ziar bu baax di ko ñaanal jàmm jàpp na ci combat bi merci mu ngi jàppale ndawi Medina yi Bamba Fall aw ma fayam monsieur le maire Bamba faal gis nañ ñi nga defaree mbeddi midina yëpp senes bi it yaa ngi leen di jàppale kontaan nañ ci moom bu baax a baax yàlla na ko yàlla sunu borom defal jàmm Bamba Fall. ñaari ndam dugg na Medina tey. Mhm, daan nga giri daan. giri daan yàlla na yàgg a yokku rek képp ku ne fii rek yàlla sunu borom di la may ndam parce que ñun du yàgg ban bëri suñu biir. Medina ak Fass duñ yàgg ba bëri suñu biir man man ta ne sax parce que xam nga rek man dem naa ba tey ji midina gisuma lu ma fi mbër ëpple te boo xoolee tey tey di nga ci xam dara. mbooloo mi de bëri na mbay. Medina kenn ëppalewu ma fi dara. li nga mbooloo cee sàdd. laa dëkk amul dara man Medina dama ñëw ñu bëggal ma seen bopp maa nga jóge ba Bawol mais dama ñëw dëkk ak ñoom mu rafet ñu bëgg ma te yàlla tax moo tax fi mu ne nii maa ngi ñaanal ñëpp jàmm képp ku ne Medina daal yàlla yàlla defal jàmm maa ngi gërëm sama mbokku Bawol Bawol yëpp di ñaanal ñëpp jàmm képp koo xam ne daal dama laa fàtte maa ngi tuub di jégalu Sandaga Petersen maa ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm centenaire képp ku naa yokkal ma jaay la maa ngi lay ziar di la bége di kontaan ci ñëpp Cheikh Thiaw sama doomu ndey aw ma fayam am Amidou jàpp na ci combat bu baax waaw yaa ma gën a xam jarbaatu Demba Kala sama waay sama xarit la. waaw yaa ngi Youssou Ndour bu Balla Gaye loo ci wax. non ñooñu ñëpp bëreew ma ak ñoom. Youssou Ndour daan bébé Jules de barki. soxlaa Babsu. man kay lu leer laa lay wax. Youssou a dépassé yow ma gi yëpp amut maa ko bëggut. mbaa yow boo jàppoon di nga bëriwaat. déggoo ma de bu yeboo ma toog ba déwén mais bëriw maa koog. bëriw Youssou Ndour bu Balla Gaye. non non déggoo ma Tapha Tine day daan damay xaar Tapha daan Boy Niang jox ma ko. yow lii rek ngay xaar. kese. mais Boy na beneen combat am na Balla Gaye. ba dañ koy daan de combat ba lañ si signé ngeen xamul. kun daan doo bëre doo bëre ak Balla <coughs> bu ko dafa daanee nga ne. bu <laughs> ko tabaare koy daan ñu jox ma ko booy ñaa moom na xam ne mooy lool booy ñaa mel daa signé ay combat war a bëre ko ah, ah, moo ak balla bi du dara ak kayit lañ fa def noonu rek xaw a kii mais buñ ko daanee nga xam ne ko combat taxawu fa booy ñaa tabaare koy daan ñu jox ma ko ma daan ko loolu kay bu la neexee dencal. man kay wax jaa ngi Equivox. jeex na point. léegi looy wax waa Equivox ngi gërëm waa Equivox TV. Equivox Mbaye. Equivox TV. maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di kontaan ci yow Babacar. yow sun grand nga sama xarit nga maa ngi bég bu baax a baax a baax di bég defe naa ne sama mag xaw ma sama doom bàjjan mooy sa soxna na ko mbër yi xam tey nag buñ tax ñuy siisu buñ tax ñuy siisu wala dara waa sama doomu nijaay lenge mooy sa aawa maa ngi gërëm nag ñaareel bi ñaareel bi moom daa mel ni fi ni ne nii mooy loolu yaay leer nañ bab sa mais maa ngi lay bëggee di la wax yàlla sunu borom bàyyi la ak ñoom nga am ci njaboot gu barkeel ci barke Seydina Mohamed maa ngi nuyu sama nijaay kóor yi waa Daadak waa altu ndàngal ma ngi gërëm ñëpp mbomboy ak yaay maa ngi gërëm ñëpp waa Bambey reefan ñaañaar fudaay njarno nderep ah, njanjaar réew maawo new raan est-ce nga ma fépp mor kankang maa ngi koy ñaan yàlla sunu borom may ko ndam ak laat kooñaa képp ku dëkk bawal daal am am combat na la yàlla may ndam Assane Ndiaye loo koy wax moom doomu ndey it ngi koy ñaanal combat bi mu jëm moog Cheikh Super Jamono yàlla defal ko ndam Ahmed Lagro sama doom sama xarit yàlla yàlla sunu borom may ko ndam àllarba lay bëree ndam lu seddu guy. soir Ahmed booy la eh, moo koy xaar àllarba ci kattanu yàlla day yaa koy indi billahi maa koy indi te incha safara safara da lay bëri incha koy may ndam incha allah koy wax Assane maa ngi koy gërëm di ko wax nag mu dolli ma xaalis itam ah. waaw parce que li ma fay làmb ji dama koo duy dem ba sa ba mu fees dell. loolu la ngeen déggoo woon. waaw loolu lañ demee nag sama waay la. Assane moom loolu du problème. borom Bawol production borom Bawol production kenn du ma ak pël bu rafet maa ngi koy bëggee. macha allah suñu concert. man journaliste yëpp man man lañ faral mbëri yéen. déet mbay journaliste yëpp man lañ faral parce que gars la ñaar mbëri yi. da ngeen di bëre jël seen xaalis tëdd ci man li ma yor dama koy tas bokkoo ak ñoom ñii li ñuy def dafa metti maa ngi nuyu sama waa ji ma dóoroon mu daanu sa caméra. gomis gomis. Tappé gi may naa la ndam li yow ñoo bokk Medina yàlla na yàlla defal jàmm di nuyu sama jigéen ñi ah ñu ñaawul ñi jongoma ba bëgg a dee maa kontaan ci yéen yàlla na yàlla defal jàmm. bég naa torop. star eh, eh, eh, star borom Dakar. mais sama DC gi ne toog copé copé puusal gi borom mëtëy kii mëtë bu mu jaayul baaxul. sama waay bu mu jaayul maa ngi koy bégee di ko siyaar. jërëjëf jërëjëf kon kookoy mbay guy gi ah, dégg ngeen li wax macha waa làmb la da doon bëre ak maam Balla mbër boo xam ne moo ko jiitu ci làmb parce que man bu boo ma laajee Balde si lamb bu ma lay wax dama lay wax ne li nga xam ne moo nekk si kayit yi biñ ma nee favori dama leen ne maam Balla mooy favori moo jëkk bay si làmb comme mbaay au niveau yi mu bëree mbay jotu koon ko bëree waaye nag garab la si ka ndam lamb garab la si kaw lay fekkante bi ñu fekkantee ci kaw maam Balla may na ko sens mbay saisir na sens bi parce que fexe na ba daan ko te daan na ko daan boo xam ne dëgg yàlla yow ngay mag parce que koo xam ne da nga ko jàpp tëj ko yëkkati ko dóor ko ci suuf defe naa loolu kenn du ko werante Mame Balla tamit ñu ngi koy encouragé di ko wax ne moom macha allah dafa bokk si làmb na liggéeyaat ñëw parce que olof ne na bu yoon jeexu si lu waaxu si lu jeex mbay tamit di ko félicité di ko wax ne nag li mu passé li ci kanam ko gën a metti foofu te bu ci ki kanamee da nga xam ne lamb ji li fi nekk fi mu nekk nii làmb ji lépp dëgër fu nooy amu fi kon gars yi beneen yoon ak Equivox TV du mën a ñàkk di nuyu waa place bi nga xam ne fi lañ doon terminé émission bi ah ñoom nag waa ah Lumba Yara Lumba Yara Sob noonu la fa demee kon Lumba Yara Sob yàlla seen jàmm yàgg di nuy groupe Equivox TV yëpp Gomis wala boog Balde moo ne ci caméra bi ak montage bi di ko nuyu di nuyu ki nga xam ne moom mooy Gomis di nuyu Seck suñu kilifa mais tamit di nuyu El Hadj Diouf depuis Passy mais di ñaanal xulle yàlla na ko yàlla defal wér gi yaram barke yonent bi sallallahu alayhi ba mu dikkaat ci suñu biir di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi biir Equivox rawatina l'infatigable Habib Seck yàlla na jàmm yàgg ak Babacar ak Equivox ak lamb lu original ngay gis doo gis foo mukk loolu la suñu borom bi dogal ba beneen yoon. combat yi a ma jëm moo ci gën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 bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk